soit kii la toog waaye def ko muy xabu xabal di kii ndax amul ragal dama koy juma dama koy daal barki sëñ Bamba day zembale daw di boole boole bàll sël amul keneen mais ay doom kee waay la ci rek dañuy topp waa ji rek sël bu dee ñu dee yow loo gën a neex ci Balla yow man Balla lépp ma neex lépp lépp ma neex amul lu ma amul lu ma naqari ci moom bu dee ma dee barki sëñ Bamba moom dong lay topp amul keneen day daw rek amul arrêt day doom kee waay la barki sël day zembale rek amul arrêt ndeysaan ma ne ko gis nga xale yi confiance bi ñu dégagé loolooy lamb xale yëpp ñu ngi ay confiance loolooy lamb ndeysaan lamba gi noonu ndeysaan li li dese bàll pour mu génn bareetul ndax soo gisee dernier réglage bi nga xam ne ñoo nekk ci budu kër gi nga xam ne tey li ci des bariwul tey soo xoolee balcon Balla Gaye bi ay xale ñoo fa nekk ña noonu soo xoolee xale yi ñu ngi ci balcon bi tiim li nga xam ne mooy bund kër gi Sa Thiès a ngi ne taxaw ci bund kër gi ma nga noonu moo moo yor wàllu sarax yeeg wàllu suul yeeg wàllu suy gis nga léegi bi mu génnee dafa sëy xuram ñu ne ko ndax ca ngay yam mu ne déedéet daal di indi galaas gi moom Sa ndax mbokk ndey koy jur te xam nga ne tey fu ball pigiroo Sa Thiès naan fa doom moo tax tey dafa jël bis bi en charge moom Balla ki nga mooy Sa gis nga mi ngi noonu mi ngi segg nit ñi di war a dugg ak ñu warul dugg moom Sa Thiès mu taxaw ci bunt bi bu njëkk agent sécurité lañ daan jël tekk ci bunt mais taalif Sa Thiès moo taxaw ci bunt bi di segg ñu war a dugg ñu warul dugg ndax dañoo soxla bis bi waaye soo demee kër Tapha Tine nga xamante ni comme Mawla Sané waxee tey ñi war a dugg te ñi gën a jege Tapha Tine ñi gën a ñi xam ne ñoo euh, maanaam di gën a jege Tapha Tine ñi nga war a dugg ak ñu warul euh, dugg gis nga ñu ngi noonu tey kër Balla Gaye ngi noonu ci bunt kër gi ñaari lion tey wane ne bala Gaye mooy gaynde gi jël sëriñam def ca kaw jël Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul def ca kaw kaw loolu nag day ne murit murit piir la ndeysaan sarax yaa ngay jënd sarax yaa ngay jënd ma ne ko sarax yaa ngay jënd ay ndabu ceeb laa gis ñaari ndab romb nañ ma ñaari ndab romb nañ ma maa ngi gis Sa Thiès Junior Sa Thiès Junior a ngi noonu gis ñoom uh, Maguette Seck di Boy Niang 2 ña nga noonu waaye nga lim Balla Gaye bi xale yaa ngi noonu waaye ceeb yaa ngay génn mu ne ko ceeb yaa ngay génn ay ceeb yu yàpp yoo xam ne yu ànd ak ay lujum la yee ceeb bee wéetul de ceeb yee doore na ceeb yee bari na lujum bari na ndawal gaa yaa ngay génn saraxee ña ngay génn xale yaa ngay toog di xewlu ña ngay toog waaye lu ma xaw a jaaxal mooy bi nga xam ne ñu ngi sarax xale yi lax bi sànq boo xam ne ni xale yi moom lañ doon compté bi nga xam ne wóor yi xale yi leen sarax dañoo compté xale yi ba nga xam ne lim bi ñu soxla woon mat na ñu daal di dagg raxa bi kon dañ naan laa leen quarante xale ngeen di sarax wala fukki xale ngeen di sarax wala ñaar fukki xale lim bi ñu doon sarax dañ koo compté hélas kon gis nga am na xale bu jigéen bu génn xale ci jigéen naalu Balla Gaye la nekk ci bunt kër gi waaye Ousmane Diop a ngi noonu ñu dem jëli ko Ousmane Diop ndeysaan ndeysaan boo xam boo xam ne fa sarax tax yaay am ndam parce que mëno dem ci sëriñ mu diggal la sarax bu wéx te raxé bo xamé sa sarax boko ko ci kot bo àggee lamaj day yomb. la non tok ci tànkam diré ko rek bañ xéx xéx bu sax amul ñëriñ xamna fim jaaroon waji na tokat ci tankam diré ko rek rek. dur fop lamb dur fop la. mbaay baytuloo ngeen ko kor tafatin non lolo am ponkal mu toll ni bu nango bal tafatin diko kor diko manipuler mom la neex. li ko war tey ci bis bii. mi ngi ñëw léegi ci kanam. ban Balla Gaye lañ war a gis tey arène. Ousmane Diop bu ba. la ilaha illallah. ndeysaan hélas gis nga li ma la waxoon sax Ousmane Diop li wax moom la confirmé nee su fekkee sarax bu ñuul lañ la wax du doon sa sarax des fois a ngaa contrer sa bopp du ko yëg waxuma ko de daa confirmé wax ji ma waxoon nga xam ne bëri na ak Balla Gaye tey bokk ci encadrement am ma nga noonu waaye xelal jëlal ma ba tey. ci buntu kër gi ña nga noonu ndeysaan ndeysaan ndeysaan ña nga noonu ña nga ñu ngi noonu di def li nga xamante ni moom mooy ci préparation ba tey préparation ba tey ñu ca préparation bi ndey ñu ngi noonu ci préparation ba tey ñu ngi defar li nga xam ne joo lëm tey ña ñu far ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan gannaaw dañoo ay bagage booy wuur du am problème ndeysaan na nga noonu ndeysaan ëpp ndeysaan na nga noonu gars ñu ngi ca liggéey lépp liggéey na ku ci nekk ña ña ngay joxe école yoo xamante ne ku ci nekk fi nga war a yem te làmb loolu la laaj ndax dafa bare ay ndëgg sërëx yoo xam ne gars yi bugguñu ko ci làmb ji moo tax sécurité bi ñëw nañ suñu kaw nañu fii ngeen war a yem ñu ne ko xam nañ loolu ndax xam nañ làmb waaye ñun tamit ñi ngeen ñu may rek loolu la ñuy jël lool ñu mayul bugguñu ko na nga noonu na nga noonu na nga noonu ma ne sax day doon guerre moo tax jaru ko ma ne ko xool fa bale gën a dangereux nga dugg sa biir rawatina làmb ñu ngi noonu loolu bëgg rek loolu la ñuy def ndeysaan ndeysaan ñu ngi noonu di préparé xam naa ne Balla Gaye li ko dese bu génn bareetul. allo ndeysaan allo Zalba. waa aji. Euh, père dafa bëggoon wax ak za kii Sa Thiès waaye dafa mel ni mënul nekk. non Sa Thiès sori na ma. waaw dafa sori. ndax xam nga sama diggante kër bundu kër Balla Gaye. toll na ci cinquante mètres. si si loolu laa gis léegi. waa te Sa Thiès mu ngi ca bundu kër ga taxaw. mais maa ngi gàkku de mi nga xamante ni. gàkku de ci àndandoo Balla Gaye de loolu. d' accord papa waxal ak gàkku. mu kii bu fekkewul Balla. waaw fekkuma ko ko waaw fekkuma ko ko. waaw. yaa ngi taxaw gàkku de. waaw maa ngi taxaw gàkku ñu déglu ko. waaw. waa ca Sa Thiès mu ngi ca buntu kër nga taxaw. def nga ci liggéey bu rafet def nga ci lu mu mën li nga mën. sunu sunu sunu grand sunu grand bi nga jëloon. waaw maa ngi taxaw gàkk ñu déglu ko. yàlla yàlla yàlla daa def li gën. ñu koy ñaanal yàlla yàlla xare ko waat. def nga def nga ci liggéey bu rafet def nga ci lu man def nga ci li nga mën. gaa yi jàppale faju na waaw faju na yàlla def na tey mu la la jël liggéey na àdduna tey la nga doon saraxal ñu ngi koy ñaan yàlla xar ko àjjana yàlla ko yàlla si ko incha allah yàlla ko yàlla yaatal bàmmeel mais tey dañu gisagul Balla Gaye day jël temps am rek day nelaw nelaw heure bi. xamul ko kenn day nelaw jël tax. bu nelawee ba yeewoo añ ba suur meew. xam nga. waaw kii neexul jamono yooyu. waxul bu cinq. na bala war a takk ngeen dem di nelaw ñu balagay bi bii mooy ay 20 20 lañ combat comme 24 comme quatre balagay balagay dara jaaxalatu ko ci làmb. mais combat bii bokkul ak bii parce que bi dafa daan ki après te dama lay dab su da ngay waaw mais bu yàggatul trois heures de temps de temps rek inshallah allah ñaan ñu jàkkaarloo ñoo ngi ñaan yalla yàlla suturaal yalla may ko ndam. bu ni wax rek arbitre dina siffler inshallah bu arbitre siffler yalla may ndam bu parce que ko mu mu waaw. tey préparé combat Balla Gaye waaw ah, waaw tey en tant que ñëpp xam nañu ndaanaan géej ci nga bokk hmm. tey Balla Gaye nan la war a dugg ci combat bi non Balla Gaye da xam la ngay def hmm. dañu nekk si gannaawam poussé ko ndax suñu mag la suñu xarit la suñu lépp la ñoo àndandoo faire préparé commandoo lépp dabante nañ dafa loolu yëg ci Balla ak Balla mu nga xam moo ne ci si kanam tuuti hmm. di nga si xam dara ana Balla yaa mi ngi ñëw mi ngi ñëw. waaw ngi noonu. da nga mel ni ngeen xaw a yërëm Balla lan la. garaan nga ne. ah ndeysaan gis nga gaa yaa ngi noonu. tey soo xoolee am nañ confiance ci Balla waaye dañ ko yërëm ndax Balla dafa nekk mbër moo xamante ni. mbër moo am fit la mbër moo am fayda la lépp lu géej waaye ñàkkoon ci lam baale moo ko mos a jox kon tey loolu nga xam ne mooy fit boobu newoon ci moom ba tey mi ngi fi waaye tey supporter soo xoolee seen kanam nga xam ne ñi ngeen confiance waaye yéene nañ Balla waaye yërëm nañ koy waaye bis la boo xamante ni ku ci nekk ñaari mbir dañ koo bëgg ndax tafatin ni ñu yërëmee Balla noonu yërëmee tafatin ndax tafatin mi ngi ci ay dynamique mais Balla daanaat ko yërëm talu na waaye tafatin ki nga mooy Balla Gaye gaynde la te gaynde du benn sa ñaar yoon ci àll looloo tax gars yi ko moo tax ñu ñëw ci géew wala ñu ñëw ci li nga xam ne mooy buntu kër gi maa ngi seen ki nga xam ne mooy waa équipe li Balla Gaye boobu